برهام باء وراء ألف ثم ها ميم فيض تيجان جخن نينان من فاتلكو امنا كو فكه تي جتاي مانا ميغي فاتلكو امنا كو فكه هون قاهره بنجنا قاهره yàlla xiir ma ci jumaa ma julli ji ci jaamoo lafar rek yàlla xiir baay mii ci jumaa mu dem jaamoo lafar julli ji jë maa toog rek bi bàyyi see rek dal di toog ilimaan ñëw ne ma yaay jiite kat ilimaan ji dal di ñëw rek jox baay bokk bi ne ko yaay jiite wax ma ne teg baay dal na teg soo parewut pour xutba gi mu ne baay su fekkee dangaa parewut pour xutba gi bàyyi la ba beneen àjjuma. ma jéggal la bon ba beneen àjjuma. wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. mu ne ko baax na bon nag léegi. bàyyi nag ne ko baax na ma yëg léegi. xanaa xutba leen jiite leen. bàyyi da leen di xutba ci Kaahira jiite leen ko. dama salmalee mu jóg di faraa xutba gi ma xutba. bi bàyyi salmalee ilimaan di jóg na xutba gi bàyyi xutba woon mu di ko saraa di ko fekkil nit ñi. nekk na ca li ma wax léegi. ñett yéen a sekat lii leen bàyyi wax léegi. boobu buuru jullit bi laaj. boobu buuru jullit bi laaj. réew mu nekk fay njiit ci lislaam. réew mu nekk fay ko nit ko nit mu ne. wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. diine mu ne diine lislaam. ak jub bu doy rek ko kay si ku gën a xam mooy sang bi rek. mais kii ñu ngi fi ñëw mel ni gan mu dal waa Misra kii ñu jiite tey mi fi ñëw mel nga gan la ci ñun. waaye ndokk bi nga xam ne ñun bi ñu sutee rek ko jiite. moo ñu sut amuñ ca benn kalaan ñu nangu koo jiital. la Fodé waxoon Isaam ibnu Abdul Malik. la Fodé waxoon Isaam ibnu Abdul Malik. mu ne waaye lu mu gàtt gàtt fàttali nañu lu nekk. mu ne waaye nag lu mu gàtt gàtt fàttali nañu lu nekk. mu ne fàttali nañu ni ñuy jàngal alxuraan. fàttali nañu ni ñuy jàngal alxuraan. fàttali nañu fasaa ci wax yaaram. fàttali nañu fasaa ci wax yaaram. ak yeneen jikko. ak yeneen jikko nag. ba jaamoo la kër sampoo ba tey. ba jaamoo la kër sampoo ba tey. doom bu dëkk Misra jàng ci jaamoo la kër rek doom bu dëkk Misra. dangoo ci jaami yoo lëfër moo fiy jiite lu mooy nag bés bi fi bàyyi ñuy jiite. loolu ma leen di wax ne. loolu leen bàyyi di wax ne. lislaam. lislaam. dono ci. dono ci. xaajuwut ci juddu mi nga aju. xaajuwut ci juddu mi nga aju ci xam-xam rek. Ah, ca Quraan. wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. yéen ñëpp bàyyi nee na